at mi waat si compétition boobu ñu naan Bouba Demba ak kan Raja Raja man Raja comédien ndaxte day way di ñu ko nëbb ak kan Pawlish Mbaye kan Ouzin Keita kan ak waat Diaw Ketchup ak Singom Daaji Ngam ñooñu ñëpp at mi nañu émission compétition boobu noonu di seen petit gàlle bi yoon na xanaa seen grand gàlle la <laughs> Sénégal neex alerte lan alerte international lan moo xew meeru Sangalkam bi ñu naan Pape Sow kat dañuy xëy suba teel di koy yeenan ko jëkkër kaay nga dem liggéeyi mu naan fan ñu ko meer ba lu ma fay def ñu ne ko yaay meer mu ne ah yëguma ko woon loolu kat doy na waar ñëwaat ak yéen ci lan waa Sangalkam kat nee nañu yëguñu gisuñu Pape Sow waaye lii raam bii di ñëw daa mel ni saw la de saw la mer ak lan benn métier bi nga xamante dañ ko bëgg a Sénégal métier bi lan la soo parachute lan ñu naan dañuy soo parent la moo tax ñu war ko génne parce que accident yi dañ see bëri te bu ñu waxee ñaan dañoo accident am na ko si génn kat ne carrément lii du accident ndax kii dawal avion yi moom prévoir na atterrir waaye kii soo parent nag moom prévoirul attérir kooku bu daanoo daa xar waaye bu mu waxat damaa accident waaw ma ñëwaat ak yéen ci beneen yéenekaay bi nga xamante ne sëñ bu mag sëñ bu tedd sëñ bu yiw bi nga xamante ne moom la Sénégal njaay yépp respecté jox cër jox nopp di ko bégee di ko safoo sëñ bi ñaanal na Sénégalais yi yépp lu mu ñaan triste nag maa leen koy jox mais foog ma yeggal yi ñaan bi sama sëriñ bi nee na képp ki nga xamante ne yaa ngi soutenir kii di Adji Sarr yal na la yàlla may doom bu jigéen boo xamante ne day yor ji koy Adji Sarr <laughs> waaye képp ki nga xamante ne yaa ngi soutenir kii di Ousmane Sonko mu ngi lay di remercier waaye di la ñaanal yàlla nga am doom bu góor bu mel Ousmane Sonko man nangoo guma ñaan bi neewu guma de kan may wax amin waaw na ngeen abonné waat si suñu seen bii di Diassigui TV ngeen ome ngeen ome bés dañ may <laughs>